alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala ñoo ngi sant yàlla di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu xéewal defal ñu sutura defal ñu jàmm tey comme que yéen ñii dañ ne nañ waxtaan fii ñii ne nañ waxtaan fii ñii ne nañ waxtaan fii kenn ku ci nekk am loo bëgg mu waxtaan léegi nag man dama leen di indil benn histoire boo xam ne histoire bu jëm ci wàllu dimbalewante la bu jëm ci di wàllu euh, dimbale koo xam ne dafa ñàkk la xam ngeen ne dimbale ku baax dimbale ku ñàkk dafa baax fekk sa mbokk jullit amul nga dimbale ko loolu dafa baax yàlla da koo bëgg dafa am benn góor gu baax bu nekkoon ci benn dëkk góor gi nekk ci dëkk bi am benn tool tool bi saa yu demee ba meññ mooy saa yu firwe yi demee ba ñor dafay witti tool bi su wittee tool bi tool bi da koy xaaj ñetti xaaj ñetti parti la koy def benn parti bi moo miskin yi jox leen ko mooy ñi nga xam ne amuñ alal ci dëkk bi dañoo ñàkk amuñ luñ dundee amuñ luñ lekk ñooñu lay jox benn parti bi mu des ñaata parti mu benn parti bi mu jël ko ak waa këram ñu mu des ñaata parti parti boobu lay jël yóbbuwaat ko ci tool ba ji ko ngir tool bi mën a saxaat meññiwaat mu def nam daan def léegi góor googu bi mu demee ba gaañu bi mu demee ba gaañu léegi ay doomam ne ah ñun daal suñ papa daal da daan yàq rek tool ji tool bi ak alal bi ak alal bi ñu baree nii ñun daal tey tool bi bu demee ba ñor dinañ ko witt te duñ ci jox benn miski léegi nag ñu daal di euh, ñu daldi di dëppoo ne léegi suba teel ñun ñëpp nañu xëy suñu xëyee dem ci tool ba witt ko suñu ko wittee nag bu ñuy dem benn miskin tey du ci tool bi tey benn miskin du dugg ci tool bi ñun ñoo fay dugg witt ko yóbbu ko suñu kër lii ñu lekk ko lii ñu jaay ko waaye xam ngeen yàlla rek yàlla moom xam ne mooy def lu ko neex yàlla ne waaw baax na bàyyi leen bañ tëdd di nelaw yàlla am lu mu yónni mu ñëw witt tool bi ba mu set bi mu wittee tool bi ba mu set ñoom ñu xëy nag bi ñu xëyee ñu fëggante ci suba teel jibi fëgg Pape Samba Ndaw Pape fëgg Ousseynou Ousseynou fëgg Mourtala Mourtala ñu dem jug gaaw ñu dem tey bu ñu gaa yi gis dañ dem witti tool bi suñ ko wittee ñëw nag jël ko tey miskiin yi duñ leen ci jox léegi ni ñu jugee noonu rek di dem dem ba mu yàgg ñu jàkkaarloog tool bi gis tool bi dañ ko dañ ko witt ba mu witt dara nekkatu fi ñu ne waaw ñun dañoo réer eh, lii di tool bi de ñun dañoo jaawale fii ñu jaar du yoon bi de ñu ne ah, bi ñu ñëw biñ ñëwee dugg tool bi gis ne tool bi witt nañ ko vidde na dara nekkatu fa ñu taxaw ne cey ñun day alku nañ ñun day dañ ñoo xaj kom que mbooloo moo gis am na ñu ca bon am ñu ca baax ki gën a digg doomu ci ñoom ne leen ah man day waxoon naa leen ngeen wax subhanallah ngeen tudd yàlla foofu rek ñoom ñëpp ñu ne subhanallah ñun day yàlla dañoo tooñ léegi nag foofu ñu commencé di yeddante ci seen biir kenn ku ci nekk di yedd sa morom yow la kii naan ko du du man yow la yow yaa tax ba lii ñuy dal dale yàlla noonee la leen nattoo mbugal moomu parce que ñoom dañ doon jéem a xaj ñi nga xamante ni ñoom ñooy miskiin moom la yàlla di nettali ci suuratu Nuun di wax naan إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون qaalu yaa waylanaa inna kunna taaxiin asaa rabbuna an yubdilanaa xayran minha inna ila rabbina raaxibuun kon ñoom foofu la yàlla jaar ak ñoom histoire boobu lan ak lan lañu ci mën a tirer comme leçon hmm? histoire boobu lan ak lan lañu ci mën a tirer comme leçon ban leçon lañ ci mën a jële xamuleen ko hmm? bi biñ ci mën a jëlee mooy ne nit nit kenn du ko xañ parce que wërsëgam nekkul ci sa loxo wërsëgam ci loxol yàlla subhanahu wa la nekk xam nga wax naa leen ne leen góor gi moom moo moomoon tool bi daan ko witt di ko def trois parties partie bi mu dundee ko mook waa këram mook ay doomam partie bii mu jox ko miskiin yi partie bii mu dellowaat ci tool bi léegi bi góor gi deeyee doom yi ne ñun li suñ baay daan def duñ ko def tool bi ñun ñoo koy witt moom ko duñ ci jox benn miskiin xam nga kon booba ñoo ngi jéem a xañ miskiin te fekk ne ñoom xamuñ ne loolu ñu leen di jéem a xañ ñoom da di yàqal ba tax yàlla di wax naan wala yaxiqu makru sayyi illa bi ahlihi gis nga kii def lu bon lu bon loolu ci kawam lay tàbbiwaat dèjà ñàkk nañ seen tool te itam beneen bi mooy yàlla lépp lu mu namm ne di daf la koy jox loolu kenn moom la koo xañ maa yaftaxi llaahu linnaasi min rahmatin falaa mumsika laha wa maa yumsika falaa mursila lahu min baadi yenent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su fekkoonte ni bi yëpp dañoo daje yi yàlla ne dina jox jibril benn diplôme adduna bi yëpp dajee ne jibril du am diplôme boobu nee na du teree yàlla jox jibril diplôme boobu waaye itam yàlla bu waxoon ne jibril du am diplôme sàngam adduna bi yëpp daje ne dañuy jox jibril diplôme boobu lu tax jibril am diplôme boobu parce yàlla tudd loolu moo tax nit doomu aadama dangaa war a dimbale miskiin miskiin nag buñ ko waxee mooy koo xam ne dafa ñàkk awul lu mu dundee wala tey su su añee du reer su reeree du ndékki su ndékkee du añ parce que lan dafa ñàkk kooku day jaadu julli di ko dimbale boo toggee ñam tibbal ko léeg-léeg nga am sa loo bëgg maye muy lu baax nga may ko li nga ko koy li nga koy may itam bu mu nekk loo xamante ni dangaa dem a dem ba soxlaatoo ko déedéet li nga koy may na fekk na nekk ne danga koo bëgg ndax yàlla nee na du ngeen am mbaax du ngeen am yiw lu dul ne su ngeen di mayee da ngeen di maye li ngeen gën a bëgg waaye xool sa tubay boo xam ne dafa xotteeku bay bëgg a nga jël ko dem may ko doo ci am benn tiyaabo kon dangay xool ci tubéy yi nga gën a bëgg xool ci yére yi nga gën a bëgg nga jël ko may ko ci kon jullit loolu dañuy jàngal solidarité dañuy jàngal solidarité jullit dafa war a am solidarité ci diggante ak moroomu jullitam waaye itam dinañ ci jàngee itam ni kon góor boobu góor bu baax la woon góor la woon boo xam ne daf daan dimbale miskin yi waaw ndax gis nga benn pàpp bi mu daan xaaj di leen ko jox te su boobaa miskiin yi ñoom ñoo daan ñëw wicc tool bi góor gi tool bi dafa yaatu woon léegi buñ bàyyee ba tool bi ñor góor gi day woo miskiin yi ci dëkk bi yëpp ñu ñëw mu witti tool bi mu jox leen si te tey mënoon naa doon koo xamante ni da leen di woo ñu ñëw witti tool bi ba ba pare mu yëkkati xaalis fay leen mais defu ko daf leen wittiloo tool bi ba tool bi pare mu yëkkati benn partie bi nag ci tool bi daal di leen koy jox nga xam ne dina ci mën a dund dinañ ci mën a dund dund gu yàgg balaa dund woowu di jeex fekk tool bi ñoraat góor gi defaat leen noonu ñu liñ ci jànge mooy julli daf war xam ne dafa ñàkk ndax bu ñu xoolee alquran yàlla subhanahu wa saa yu wax ci waa safara dina ci bokk wala taxaaduuna ah, ala ala taamil miskin gis nga wala taxaabuuna ala taamil miskin ñoom bokk na ci liñ daan def ci adduna mooy daanuñ soññante ci leel miskin jox ko mu lekk waaw su ko defee loolu jullit da cee war a bàyyi xel ci yeneen aya yàlla di wax naan wala yaxubbu ala taamil miskin fa laysa lahu lyowma haahuna xamim boo ko toppee ci aaya yi wax ci loolu bari na kon loolu liñ ci jàngee rek mooy jullit dafa war di dimbale li nga xamante ni moom mooy ñi nga xam ne dañoo néew doole loolu histoire boobu yàlla tabaraka wa taala wayu koy nettali ci suuratu nuun comme aaya yooyu nga xam ne moom lañ jàng sànq noonu la ko yàlla subhanahu wa taala nettalee kon nañu bàyyi xel bu baax a baax ci suñu diggante ak suñuy mbokk jullit tawat na ñi nga xam ne ay miskin lay ñàkk ñu di leen dimbale ci wax di leen dimbale ci jëf di leen dimbale ci alal di leen dimbale ci lekk lu ma mën doon kon histoire baa ngi noonu yéen da ngeen doon xëccoo kii ne nañ ko waxtaanal fii kii ne nañ ko waxtaanal fii kon ñun histoire boobu lañ leen di waxtaanal ngir ngeen jëlee ci njàngat yooyu ngir ngeen tiiree ci leçon yooyu ngir ëllëg yéen itam ngeen di dimbale ay nit ñoo xam ne dañuy dañoo néew doole asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu